waaye ñun ñooñu ñëpp mënuñoo wedamloo mënuñoo noppiloo mënuñoo arrêté tuxyaan bi nga xam ni Israël mi ngi koy def ci kaw si kon ñi ngi ànd ñaan yàlla suñ borom tabaraka wa taala mi dara tawul moom yàlla mi nga xam ni moo dégg ne dana dimbali jullit ñi la aglibanna ana wa rasuli moom yàlla moom mu defal ndam Palestine di ñaan yàlla suñu borom kàddu gi yegg ci àdduna àdduna yëpp xam ni senegal taxaw nañu na ñëpp taxaw ngir dakkal li nga xam ni moom la Israël di def ci kaw Palestine yàlla delloo julli ñi seen àq wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu libérez Palestine Palestine. Libérer Palestine. Israël terroriste. Israël terroriste. Libérer Palestine. Libérer Palestine. Israël terroriste. Israël terroriste. Libérer Palestine. Libérer Palestine. Israël terroriste. Israël terroriste. Libérer Palestine. Israël terroriste. Libérer Israel terroriste. Palestine. Libérez Palestine. Israël ñu ngi dalal premier ministre monsieur Ousmane Sonko di président parti PASTEF. nekkul tey lañ la musa gis ci manifestation wu Palestine. lay dalal ak jàmm ci loo xamante ne miin nga ko dañuy continuer woo ki nga xamante ne moo war a jëlaat kàddu docteur Ismaïl. kon mbokk yi ñu ngi sàkku ci waat ñëpp ñu toogaat ñu àggalee jataay bi kon di wax euh, monsieur le premier ministre ne ko ahlan wa sahlan kon ñu continuer kàddu yi ñu ngi jox kàddu gi ki nga xamante mooy wax ci المدارس القرآنية دي الأستاذ أستاذ منصور صمب moo war a wax ci turu daara yi libérer Palestine Israël terroriste mbokku adduna bi mbokku Sénégal ku ñëwoon Sénégal mu di fi liggéey ba yàgg mu ni fii ci Bawol maa ko moom ku ñëwoon fii ci Saalum di fi liggéey ba yàgg mu ni fii maa ko moom comprendre nañu jeu bi nga xam ni tey moo xew Palestine fédération nationale rabitatul madrasa qur'aniya ñun ñëpp ñoo ngi ñaari rakka mbokk yi fa may jeexale mooy adduaa silaaxu muminin actuellement bu ñu amoon yoon naaxudu sabila ila aqsa mubashara amuñu yoon nag tey ñaan moom mën naa bëgg dem ba àgg al aqsa ñoo ngi tàllal suñu loxo kon euh, jërëjëf euh, Oustaz Mansour Samb ñu ngi ki xamante ni mooy wax turu rabitatu ulamaay turu ci bët Saalum. السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mu mel ni waxtu wi dafa xat ñu guddal li ñu mën a wax mooy Israël tooñkat la Israël ku jàdd yoon la Israël yal na ko yàlla alak yal na yàlla dimbale Palestine yal na yàlla nangu ñaan yi ñuy ñaanal Palestine ñu wax ne nag asaakitu anil xaq seytaanun axras ki gis dëgg te waxul dëgg seytaane bullu la buñ bu ñuy lim seytaane yi nañ ko ci tudd te yonent bi ne woon na man raa minkum munkaran fal yugayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisaanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi al iman ne woon na ku gis ci yéen lu bon lu ñaaw bu amee kattanu dindi ko na ko dindeek loxoom su amul kattanu dindeek loxoom na ko reeteet na ko siiwal ba ñëpp xam ne lii lu ñaaw la lii lu bon la loolu moo ñu tax a jóge fii tey mënuñu dindi ak kàttan nde mënuñu faa yegg mënuñoo xeexi waaye monde bi yépp dégg ne waa Sénégal peuple Sénégal ñu ngi ànd ak Palestine ci mbir mu metti mii kuy gis image yi di gis mbir yi ne ñàkk nite di la Israël di jëfandikoo ngir lor shaabu boobu nga xam ne mooy shaabu shaabu Palestine masalul muminina fi tawaadudihim wa taraxumihim wa taatuli ljasadi lwaxid ida staka minhu udwun tadaa lahu sairu aada bisahari walxuma newoon na jullit ñi niñ war a mel mooy jigéen ñi niñ war a mel ci seen jàppante seen bëggante seen yërëmante seen ñëwante dañoo war a mel ni benn jëmm jëmm ji cër bu ci métti benn yeneen cër yépp dañu koy uyu si ci ñàkk nelaw ak tàngaay noonu lañ war a mel suñ diggante ñun jullit ñi kon lu dal jullit ak fu mënta nekk ci àddina bi war na métti yeneen jullit ñi kon mu mel ni wax ji dañ koo tënk waaye daal liñ mën a wax mooy euh, Gaza ila al amam rahimallah wa Gaza yal na yàlla dimbale Gaza amba Palestine Palestine yal na ko yàlla toroxal ak képp. Euh, euh, amba Israël amba Israël amba Israël a na ko yàlla toroxal ak képp ko ànd ak ñoom ci lépp loo xamante ne day lor yal euh, na yàlla lor àndandooy Israël ñay dooleel Israël ña leen di xalaatal ña leen di jox ngànnaay ñoom ñëpp yal na leen yàlla aram alak yal na leen yàlla boobu. جيش محمد سوف يعود يا يهودي